ni ko euh, Ismaïla Madior Fall waxee woon que ni même y a des faits yoo xam ne génne nañ ko ci bu mel ni bu Mame Mbaye Niang euh, nit ñi ñu ngi posé wu même le débat est ce que finalement duggaalewul ci biir loi bi ak yeneen yoo xam ne xëy na euh, nit ñi doon nañ ko commentre ci réseaux sociaux yeeg yu ni mel. loolu furtu la. Issa xam nga boo nekkee naan lii la concerné ak lii la concerné sax da ngay sonn. mënoo citer de manière limitative li mu concerné mais furtu la. en vérité li nga xamante ne moom la ci sénégalais yi doon euh, doon jot wala doon ragal mooy ñu dugalaale ci ñoom it seen kii ni ko Baye seen waxee baal ma. waaw mhm. mais lii la. Mhm. loolu la. Mhm. y' a pas lieu de vouloir ah. ba de février 2021 ba tey jii lépp lu lié à des manifestations politiques mais c' loolu la fi nekk di parce que ci biir manifestation yi la bakkani yi di rotee. alors ci réseaux sociaux yi la ngay gisee euh, ñenn ñi di taxaw wax ju ñaaw ju nekk ñu tibb tifaar yu metti ñu ko teg ci ay honnête euh, citoyen looloo fi xew alors donc kon lii bul sax fa nekk fi di jéem a ut euh, mm-hmm. champ de limitation motivation bi déjà rek ndax mën nañ ko jugé lii kii def motivation politique la wala lii parce que article bi nit ñi mais c'est pas de motivation politique li fi li fi jur coow réew mi yëpp divergence politique la mm-hmm. ba tax dëkk bi mel ni loo xamante ne saa waay. Euh, on a deux Sénégal <laughs> divergence politique. ñaari cest à euh, euh, kilifa bu Y'en a mu ko wax ay seex yoo xamante ne dootuñu wax ndax divergence politique. Mm-hmm. du seex. foofu la Sénégal tolloon quoi à un certain moment wax bu ñaaw bu nekk ngay dégg ñu koy tibb di ko yóbbu ci ay doomi aadama ci réseaux sociaux yi te moo xam ne day régulariser les réseaux sociaux yi am na si ne réseaux sociaux yi. te nga ko ah waaw dégg nga ko teel. y compris celle faite par les supports de communication. waaw parce que ñooñu dañu am grande part de responsabilité dans ce qui se passe dans ce pays là. oui voilà. grande part de responsabilité ah mu ngi nii leer na. bépp support de communication bépp support de communication c'est-à-dire les réseaux sociaux les médias et cetera et cetera mu ngi nii. alors donc kon tey jii nii professeur yi muy yi muy yi muy yi muy dénoncé euh, euh, man euh, wax yooyu noonu rafetlu ma ko de ay dañ def Samuel Doe boo dajee fii di nga fa fekk yooyu yëpp dama ko condamné mais lan moo ko andi Nelson Mandela dafa ne ci xeex politique buy am combat. nee na c'est l'oppresseur qui détermine la forme de combat Absolument. si l'oppresseur utilise la violence l'opprimé n'a pas d'autre choix que de répondre par la violence mmh. voilà ce qui s'est passé tout à fait Ousmane Sonko dañ ko utiliser violence verbale yamatuñ ci engagement politique am yaayam papam lépp ngay dégg ñu koy teg sur la place publique xeetu wax bu ñaaw bu nekk nga dégg ko day taxaw rek di seetaan nit la wax mu la nit xanaa nee nañ mu sax boo ko toppee ba ci miir yi mu taxaw jàkkaarloo yow. Mm-hmm. danay xosi waaw. kon pour yow lii xew nii opposition eh, benn responsabilité. non c'est-à-dire pour ces parce que. <laughs> la euh, violence l'animosité dans li wax nii. en fait mais action bi laal la. la cause. waaw lan moo tax Ousmane Sonko yegg si woon ci niveau boobu noonu. du baale bi am toog di ko segg. mais euh, di di di di ci nekkaat di ci revenir. mais Issa Ousmane Sonko il a eu un engagement politique depuis 2014. bien sûr. pourquoi affaire bi ça commence en 2021. pourquoi lii muy wax nii mu commencé parce que 2014 dem na euh, ñëw na ci espace politique dem na élection présidentielle dem na élection législative est-ce que mosu leen euh, gis mu yegsi ci niveau boobu noonu. mais parce que da ngay gis ay nit yoo xamante ne dara tekki wuñ ko ci réew bi taxaw foofu noonu saaga gu ñaaw bu nekk ñu xotti jëmale ci kaw loolu moom moo waral coow li. loi war na jàll pour yow. loolu moom moo waral euh, euh, frustration bi nga xamante ne moom la nekkee te effectivement situation boobu noonu ku mu fa nekkoon nag nit boo mënti doon. danga taxaw. à un certain moment donné quand le président Macky Sall mi ngi doon xeex ak le régime du président Wade lu mu wax le combat contre ce régime se fera dans la rue. Mm-hmm. mu ngi woo armée bi. ñu ñëw ànd moo ko wax fii. sortez fee ci njaareem dafa ñëw nee na barricade policiers yi daf ko kaji jàll. Mm-hmm. Moustapha Niasse xeer la jëloon jëmale assemblée. absolument loolu fii la fekk di alors léegi ñooñu ñoom ñoo jékki-jékki rek métamorphosé wu taxaw non nañu di état de droit homme d' état respecté institution yi démb fan nekkoon bi ngeen di taxaw nit di yuux nga dara ne booy naan góor gi dee na Samir doo daa dee di. Mhm. dem nañ ci tey cercueil naan góor gi dee na am amul fii ñu ci réew. Mhm. conseil constitutionnel war a wax booy yore cinq cercueil. ñi jël ay golo teg naan cinq singe. Mhm. amoon na fi. eh bien donc ñun ñooy taxaw léegi rek taxaw ne dañu bëgg a euh, joxe ay leçons nangam nangam no alors léegi comme que euh, xam na ne lu loxo def loxo mun na koo dindi. te am na ñoo xamante ne injustement condamné nañ leen dans ces la là. so ils ont déjà été condamnés. ñooñu il faut ñu effacer seen i. ah la ñu koo effacer. est-ce que du ko ñu waajal la buñ la tàllalee jaasi faaw nga jàpp si. foofu lañ bëgg a foofu lañ bëgg a yónni mais léegi comme que. comme que lu loxo def loxo mën na koo dindi. man euh, j'appelle à ce que ñoom ñëpp nañ voté loi bi. ñu voté ko waaw. buñ paree amul problème buñ paree voté waat. non mais comme que lu loxo def loxo mën na ko dindi. xam nga am na ñoo xamante ne. <laughs> de tëj nañ leen 11 mois. génn ne leen dëj daan nañ la 4 mois. tout le ta ah, euh, diw génn na moom ci boppam sax génn naa. mais bu délai de peine bi jeexee. Euh, le jugement devient définitif. mu dugg ci casier judiciaire naka lay def ak moom kon da ngay woote ñu voté ko. naka lay def ak moom. comme loxo lu mu def loxo mën na ko dindi rek te fii moment bii may wax nii nii nii am na ñu nekk ci prison bi di fi dund loo xamante ne non c'est-à-dire boo taxawee rek braqué wu non nañ bàyyi kooka la muy dund non na génn après réew mi saa yi mënul. après mënul bañ a jàkk mënul bañ a jàkk <laughs> mënul ñàkk. waaw sax donc nan fa teg loi bi dégg naa ku mel ni Alioune Sané par exemple mu ci même dànkaafu député yi buñ ko euh, yóbbu assemblée pour vote beeg yooyu noonu euh, parce que ñoom ñeneen sax dàpp ñu saisir euh, les institutions internationales ci côté buñ voté loi bi parce que boobu c' était avant. le récit buñ ko voté est ce que institution internationale dañ ciy mënati dara. Ah, loolu di aussi dina dina nekkaat beneen question mais pas est ce que loi reporter élection présidentielle bi. à rappeler que c'est la majorité simple je ne pense que c'est majorité qualifiée. Euh, euh, bërki démb dama gis waa Union européenne di wax président Macky Sall joxeel date. waaw ñëw li ñuy waxtaanee ni yëpp amul problème Issa xulil amnistie leen ba ginnaaw boori guddi bi méttiwul. ñaw date. sanu date xam li li ñuy xam parfois damay toog ma ne. no la presse sénégalaise dañu waroon jékki-jékki rek jéngu hmm. heure bu mu xëyee une note